ngir mucc ci terrorisme tarbiya xale yee leen ci yi terroriste yi rek moo ñu ci mën a génnee loolu nag xalaatu sous préfet bu arrondissement bu Fissel la jamono ji dafa soppeeku léegi te lu këf nit dafa yomb ñu ngi wax waxu terrorisme am na ñoo xam ne dañu am beneen xelaat ak beneen xel ci wàllu diine di ñëw di ko bëgg a suuxat ci suñu doom yi ak suñu rakk yi pour sëriñ bi te ne bëgg naa ngeen dolli ci ñaan ngeen dolli ñaax njaboot gi ñu bokk ñu xam ne jàng ak wut xam-xam loolu rek mooy tax Sëriñ Babacar mbay Daara Diouf fët bu fi sel moom nag jàpp nañu l'islam bi nekk Sénégal indil nañu solution ci xeex terrorisme ak lépp lu yàq. yàq. nee na lépp bu ñu royee mag ju jottali na xalaatu Cheikh Ndigal Sène mi nga xam ne mooy sëriñu sëñ Babacar Diouf ci wàllu terrorisme. terrorisme ñun sëriñ si ak ñun ñuy uuf njaboot bi war nañoo mën a def ci suñu njaboot lu tax bu ku leen wax ne tàkk leen bomb mu explosé ñu jox la beneen jikko wan la beneen comportement bu tax ñu bañ ne duñ ko takk mu explosé. waxtaan waxtaanu terrorisme boobu nag mu ngi am ci première édition wu gàmmu annuel bu Fissel te ñu nemm ko fa mbooloo mu takku jóge ci fépp ci Sénégal